ndeysaan sama caméraman nee na arbitre sifflé waat na ci diggante Plaignant ak Diassy Peulh Plaignant moo ñëwoon ginnaaw Diassy Peulh moo nu wan kanam Faty waaye ñu ngi xeex lu neex ñoom ñaar waaw yow loolu rek bëgg yow cooke rek laa bëgg mais bu da nga daan cooke xal dama koo yàgg def nag ase wëyu laa Fatim Diassy Peulh bi day jeex Fatim Diassy Peulh ngi rokk gis nga xoolal day jeex Diassy Peulh da koy jeexal da koy jeexal. da koy jeexal. da koy jeexal logique la parce que yóbbu na waa ji à l'usure da koy jeexal. kon Diaz Balde daal xoolal jeex Fatim. non Diaz Balde ngi rokkat. gis nga xoolal day jeex Diaz Balde da koy jeexal da koy jeexal. da koy jeexal.